parce que nous avons un artiste qui est euh, Kolda artiste rappeur qui tudd Mamadou Diaw ñu MC Beladio xam ngeen ne presse di wax ci 12 ans 13 ans 14 ans ñuy ëmb wala ñuy ñuy violé te étude bu ñu def Sénégal que ñu ci bëree ci ci région yi lay lay jógee ñu ci bëre te euh, am na ñoo xam ne ñu ci bëre ci école lay jógee maanaam professeurs yi ak euh, maîtres yi ñoom ñooy ñu ci bëre ñoom ñooy la ñuy la ñuy jiñ te fan yi rek ci soleil, ñu ngi doon wax benn fii c'est suñu ci ci biir Dakar ñu ngi doon wax benn viol boo xam ne enseignant bi daane viol bi c'est un viol consentant. un viol consentant. waaw léegi. ñun dañu am artiste bi moom dem na ba am fit ci benn musique am benn morceau teg benn en scène maanaam di wax ben enseignant lu def élève di wo population di wo enseignant pour pour pour que ñu mëna déggo pour pour ñu mëna xex li pour mo amati enseignant parce que ci bir dafa am ay tour buñ joxé mais du du nit mais ay ay la ay monsieur Diaw monsieur Baldé monsieur Fall ñom liñ dégg non ñom dañu tégné sen bop ka leen leen Fumuneni qui qui euh, euh, artiste bi dal ku la. na wax di wax ay euh, muy wax ci wax ci corps enseignant manam pour ñom dal na corps enseignant. ñu japp ko ba tribunal nous ñu koy semaine prochaine 18 septembre. té ñun lolu mo parce que pour nous, artiste muy constitution muy suñu suñu suñu loi ci suñu propriété propriété intellectuelle artiste mom limu mu limu a indi comme message ci art ci aram la ko mën indi muy écrivain muy poète muy slameur yi ñuy dégg muy artiste peintre kopp képp nga xamné artiste la ci expression artistique bu mu joxe manam li ci limu ci jëf-jëfam ci loolu la mën ñëw di yar suñu société bi te ñun comprendre ñu fu mu ne nii comprendre ñu que ñuy ñëw nag di portel suñu artiste bi plainte ñun suñu xalaat ñoom dañ ñëw plutôt ñëw ne à ah, sawaay li nga wax dëgg la nañu booloo pour ñu xam naka lañuy def ba li bañ a amati kon pour ñun dafa pour ñun groupe enseignant bi porté plainte pour bëgg bëgg a ko sonnal defe naa kan nañu war a sonnal dañu war a sonnal ñi nga xam ne ñoom ñooy toog di toroxal suñuy doom yi waaw loolu moo tax ñu ngi fu mu nee nii ñun daal ñun ak suñuy partenaire du ñu taay dinañu xeex loolu pour que ñii nga xam ne bu ñu bëggee xeex dara nañu xeex li nga xam ne mooy ñii nga xam ne moo ñuy yàqal suñu société mais du ñëw jël benn ki nga xam ne deful dara nga xam ne fu nee nii mu ngi ñuy mu ngi ñuy éduqué ñu jël ko ne moom la moom la ñuy topp yoon pendant ce temps nag ñeneen yi ñoom ñu ngi continuer def lu leen def moo tax ñu naan groupe enseignant bi na ñu delloo seen xel ñu ñëw ànd ak ñun ñu liggéey pour ñu mën a def faire en sorte que lii dootul amati. voilà loolu mooy moo tax ñu woo mais léegi bëgg buñ ko buggulee dégg nag waaw wax dëgg yàlla ñun en tout cas suñu suñu corporation dinañu def lépp loo xam ne pour ñu mën a comprendre que ñoom nekkuñu ci dëgg. artiste moi, do nek jot ci sinon bu bu bu li bu continuer lu ñuy def moy art artiste wax dara am rôle éducation artiste bi am et après enseignant yi couvrir buñ ko bo bo bo musiba fi am té lolu ñun ñun